asalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilahi wasalla abada ala lazi bi lana alhuda abada sayyiduna muhammadin wal ali wa sahbi zawin nawalil wali wal dokamil haqli wa ilmi wa sahi wa tahil yowma kulli haya mumin barke Cheikh Khadim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mu mel ni ñu ngi fii ci Pilar ku ne nag xam na ni jamono ji fi mu toll macha allah waaye teewul murid yi moom duñu tàyyi dañuy liggéey Sëñ Tuubaa ba koroog ñuy faat rek incha allah rabbi moo tax ñu ngi fii di màggal màggal Daaru Xudoos gi donte nag daanaka mbooloo mi teewagum waaye ñu teel leen jukkil rek li fi jot a am incha allah rabbi ànd ak yéen nag incha allah fas yéeneen dund màggal bi bi jaay seen xadim bàkki seen moo waral bis bii tey ji nga xam ne nii maanaam lu tubaab yi bëggoon lu ko doon xeel su fekkoon amutoon ba Cheikh Moustapha Mouhamed am mat jël ko ba yóbbu ko te amutoon benn coow bu jib mhm. lii moo ko waral tey jii xëy na nag moom dañuy tuub ci kàddu yi ak mhm. wax ji danga ko mënewul waaye kon suñu jur ñu ngi fi nekk suñu xalifa di Cheikh Moustapha moom bu ñu yéen na yeggale kàddu yi waaw ñu ngi leen di rafetlu bu baax baax mu mel ni seen xarit daa mel ni daanaka invité invité yi léegi ñëw mhm. mu mel ni daanaka invité nañ doomi dëkk bi mhm. ak euh, mbokki taalibe bi tamit am na ñoo xam ne ñu ngi ñëw ñu ngi si yoon bi waaw waaw xam naa daa mel ni kon day jukki li njëkk rek incha allah boo ko defee nga xam ne moom dañuy yendoo ànd ak màggal gi mhm. yendoo ànd ak liggéey Serigne Touba bi ndax moom lépp liggéey Serigne Touba la ba ba ba ngoon rek incha allah waaw waaw comme ni ñu ko gis rek jotaay bi comme dinaa li bi sëñ bi moom mën ngaa am fooy commencé bay doo xam fooy yow wax dëgg yàlla li mën koy jël dañoo jàppoon day ñëw def li yam daal ñëw waa ñu miiru suñu fu mu fu mu nu mu demee soo xoolee dëkk nooyu muy xeeti tubaab yi ñoom it gën ñëw ñu jox lañ ci barkeelu yi bu dee suñu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk fii tamit ñu waa xos sa paas ak ak su waaye mën a jóge ñoom it di leen ñëw ñu taxaw mm-hmm. bis bi nun ko waree comme duñ ko waxee dañuy yow commencé kon lii daal mooy commencement waaye mbirum sëñ moom am na fu muy commencé mais ku muy yem xam naa ne ci kanam tuuti jëwriñ dina génn Cheikh Moustapha su ko defee ñuy kiyee kàddu yi rek daanaka xanaa daan dina am dina am jàng xasaay daanaka waaw tamit kuréel gi kuréel xos sabaax tamit dañ ñëw de fi yëkkatee xasida eh, tamit eh, alxuraan yi nga xam ne doon nañ ko jàng mhm. nga xam ni chaque jour dañ daan jàng kaamil bi tamit mhm. wax dëgg yàlla tey jii mhm. eh, kaamil yi chaque jour nga xam ne daan wàcc kaamil tey jii tamit def nañ kaamil yooyu yëpp fii kon daal li ci mën a am solo solo daal nan jox jëriñu Moustapha waaw sëñ Moustapha sëñ Moustapha ñu ñuy mbokki tànn yëpp kenn fi teew rek la baalu àq te di la ko baal ah di ziare ñëpp ci bis bu tedd bii nga xamante ni ah sëñ Mourou Moussa Mbacke moo ko woote ah, di bis boo xamante ni bisub sëñ Touba la ndax bëri na ñoo xam ne maanaam dañoo ëppale bis bi ndax bis bi day ñun murid yi lépp lu ñu am ne ko moo ne ko may ndax dénkaane bi nga xam ne sëñ Touba joxe woon na ko boo sëñ Mourou Moussa matal wul woon kon yaakaar naa ne tey kenn du tala màggal mais kon ñëpp war a delloo sëñ Mourou Moussa njukkal ndax batale bi nga xam ne moom la ko sëñ Touba batale woon Euh, def na ko ni mu ko war a defee ba mu mat ah te ba boole ci sëñ Mourou Moussa it digliwaat ci bis bii maanaam képp koo xamante ni yàlla dogal na nga fanaan Touba ba asamaan set mel nga ni liir buy door a judd ci ay bàkkaar kon nit fu mu mën a nekk ci àdduna mhm. maanaam fara ni Touba ak lu mën a jàpp mhm. fara fanaani Touba daa gën a nekk farata ci moom ndax bis boo xamante ne dañu day dindi bàkkaar mhm. yaakaar naa sa am ci genn bis wala ci genn màggal te waxi sañ mu sëñ Moudou Moussa du wax joo xamante ne maanaam wax ju wax joo xam ni da koy lam-laamee kon lu mu wax rek loolu ci sëñ Touba la ko jëlee kon nag ñu ngi ziare ñëpp di ziare jëwriñ ji nga xamante ne moo nekk fii ci Argentine di sëñ Dame Cissé nga xamante ne moo ah, jiitee maanaam Daaru Xudus gépp mhm. kon ñu ngi koy jaare ci turu Daaru Xudus gépp ah di fas yéene màggal gi fii rek comme ni ko sëriñ bi digle maanaam mhm. Daaru Xudus gépp mhm. kon ñu ngi koy jaare ci turu Daaru Xudus gépp ah di fas yéene gi fii rek comme ni ko sëriñ bi digle maanaam jàng alxuraan ak xasida ak mbokki taalibe yi jóge xosa paas ak mbokki taalibe yi nga xamante ne ñooy dëkkandoo yi ñun ñëpp ñu daje rek bu ko defee maanaam yendoo bis bi ni ko sëñ Tuubaa bëgg ak sëñ Mour Moussa jàng alxuraan ak xasida rek bu defee ñu yelloo ci xam ne rek moo leen tax a xam naa ñoom macha allah ñu am ay kàddu yu jukki boo ko defee ñu xam ne liggéey bi ni muy doxee insha allah rabbi kon suñ bàyyi bismillah xam naa kon nga joxe ay kàddu cant rek ñu salaamaaleykum ñu leen di leen siyaar yi ñëpp di leen baal wax di leen baal ak ci tamxarit bi ñu jógee ah bis bi moom moom daa day nekk day nekk nu mu tuddee ñu koy sax daa nekk mu mag ci ci ci bis yi. parce que Modou Moussa Mbacké moom. waaw gannaaw sëñ Tuubaa ba mu demee ci saa moom lépp moom ci loxoom la jaar ba lépp egsi fii. waaw ñun nag moom du ñu góorgóorlu rek di jéem rek amaana sax. mel ni ku koy màggal même sëriñ moom moom moom mooy matériel lépp daal barke sëñ Tuubaa ñooñu nag waaw di sant bu baax ci gars yi teewaay bi ñu fi teew ak xam nga xasida yi ñu fi bëri yëgateeg ak bernde yeeg lépp daal ñu koy. waaw ah, ñu ngi sant bu baax daal. ak xam naa kon sama jëriñ macha allah daa mel ni bis bi moom tawfeex na lool. waaw bés bi moom wax dëgg yàlla tawfeex na ku xam ci mur bés waa dëgg war a xam ne bés moom day tawfeex saa su ne gannaaw moom liggéey sëñ Tuubaa moom des ci liggéey. leen loo fi liggéey lu liggéeyul sëñ Tuubaa rek maanaam perte nga te nag ni mu demee nag ak feebar yu mel noonu moo tax tey ñu ñëw ci kër gi rek daal ko fi def daal fi bëgg sëñ Tuubaa bu baax waaw kontaan nañ lool yàlla na jàmm yàgg yàlla na jàmm sax kon ñu ngi jaajëfal ñëpp jërëjëf jërëjëf kon xam naa sëñ ji rek mooy topp ñu xool benn yi mel gaa yi ñu ngi si waajal moom waaw moo dee ceeb bi wala caagir bi la ceeb bi caagir bi daa mel ni ñu ngi benn yi yi ñu waaj bu baax a baax a baax a baax borom bi gars yi xool soxna ñoom soxna Mame Diarra ñu si wàññi ñoom macha allah. daa mel ñoom soxna Mame Diarra ñu ngi nii ñu ngi si wàññi soxna yaa nii. soxna Diarra. bisimilah ana mu nekk. bàyyi ji lii. ñoom ñëpp. soxna Diarra ak bisimilah. Cheikh Moustapha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 ña daa xiiru ak ñay mat seen gëñ ya foq nañ sa bawkat seen gémmiñ yi nañ ko Moustapha ña daa jabar ña daa xaatim ak ña daa luxus yalax nañu seen xam-xam ya far toppi Moustapha si gil te weytoo madru yi tuub nañ ci yow bu wér te bul faale ko wuy seek ka farje ki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat wiiw ne yaa ña daawoote ña daawaate Moustapha woo nee nañu waaw waaw nda Seex Bamba yaay donoom ku koy sikki sa kaareere Seex Amdi Moustapha ci waaw mbaa ci waawaaw mbaa ci woowoo nga tollu tey ku ñëw rek ku jëkki jooy ndeyaa Mustafa wolof nee woote bi yàlla moo gën bu nit di def defoo kenn deful yàllaay borom kun fa Mustafa wolof nee na am xel nangu dem téléphone nelaw ku am xel na ànd ak dem wuy ji Mustafa la Seex Bamba noon waa mi yàlla ma ku dib dof na tuug ni xil wa dew fekk Mustafa Sëriñ Bamba tuubal nan la ñëw nan bi jaayikum te salaaw dootu dellu wel nan ci Mustafa قادر